kon man en tant que murid damay jébbalu juróomi ab laa sëñ Ahmadou sëñ Modou Mamoun xalifa Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm man duma ko ñëw koy ñëw nii rek comme politicien déedéet dama bokk ci kër gi parce que sëriñ Sidi bi sëñ Ahmadou mooy sama sëriñ mooy sama wasila sëñ Moustapha la karam di sama xarit fa lay dal sëñ Moustapha Saliou di sama xarit sëñ Fallou Soye di sama xarit bu may ni bu fi jógee sëñ Bass Abdou Khadre sama xarit sëñ Abdou Karim ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk wala ziar samay xarit lañu ndax ñoo bokk li samay basi la ba ci sëñ Modou Mbaxtu sëñ Modou Mbaxtaan sama nijaay li laa gis Serigne Sidi doomam romb na fi léegi kon li ma indi woon mooy ziare ñaan ñaanal Serigne bi mu fi yàgg fi lool te wér yegg bi muy liggéeyal maamam waaye sëriñ bu mag bi <coughs> boo nee sëriñ bu mag bi kenn rek la ñu xalaat liggéey bu réy bi sëñ mu taxaa yàlla fi yàgg ci ñaan ko rek mu ñaanal Sénégal ñaanal ma ndax dama nekk taalibe boo xam ne dama yaakaar ni sama heure moo jot ndax loxoy kajoo dañuy weesaloo dama jàppale Macky Sall ba mu falu faluwaat mu ne moom bokkatul ma gis ne ñëpp ñu teg maa ci mën xam nga wax sa bopp daa métti maa ci njëkk a nekk ministre candidat yi dégg yëpp candidat yi dégg yëpp maa ngi njëkk a toog conseil des ministres yi ngeen dégg yëpp laa wax ba dégg ministre xaw xaw du sax dina nekk ministre ba may nekk di liggéeyal askan bi dañ tuddee ma député du peuple l'homme du 23 juin ñoom fu ñu nekkoon déggu sax boobu honorable député ñu ne état ñett la ñett pàcc la exécutif mooy gouvernement def naa ko ministre législatif mooy député def naa ko judiciaire falaa falaa nekk depuis fanweeri at ak ñeent ci avocat xam luy droit lan mooy yelleef ak doomu adama lan mooy constitution lan mooy règlement lan mooy loi bu ma jëlee réew mi ku ne naa la jox li nga yelloo ma ñooy doon ñaan sëriñ bi mu ñaanal ndax am naa yaakaar gëm naa ne Serigne Touba moo yore caabi yi ubbi di faj soxla yi kon ba boo ñëwee fii kii Serigne Touba actuellement Serigne Mountakha Bassirou mu ñaanal ma sëñ Moustapha Lakar ne ma fasaale loo bëgg muy sama xarit ma ñaan li ma bëgg damay ñibbi ak jot bu rafet yàlla nag mooy fal waaye Serigne Touba ku ci am doole ndax li mu liggéeyal suñu borom a tax a ah, mu ne yàlla lii la yàlla ni lool la loolu da ngay dem ba jaxasoo sa borom ndax liggéey ba rafet bi ko liggéeyal ci ci kaw loolu da dina gëñal ni bugguma nekk président pour puuxare wala nax Sénégal boo ko dara def yàlla bu ma nekk président bu ma naree war Sénégal ñu jox ma nguur gi may lekk alal réew mi di leen nax yàlla bu nekk président. jëm ci wàllu inondation yi. waaye bu dee réew mi jox nañ ma ko bëgg naa usines yi ma bëgg defar ci Sénégal département bu nekk ba def usine bu jël trois mille trois mille jeunes defal ci réew mi loo xam ne mosu fee am train yi ñu daw partout. avion yi di dem ci département yi avion ay avion avion ñu ngi inauguré. avion de ligne. avion taxi ay taxi avion. xam nga defar nañu aéroport Saint-Louis. mais ñu tuddee ko Ousmane Seck Ndiaye. mais aéroport Touba aéroport Kaolack aéroport Tambacounda aéroport Bakel Matam fu ne la ba aéroport. boo demee Guinée. Guinée. foo dem mën nga jël avion dem. Guinée ñoo ëpp doole France foo dem dëkk booy dem Marseille Montpellier Lyon Nice dëkk booy dem France doo jële avion yóbbu waaye ñun pourquoi ñun du jël avion avion dafa grave dañu bëgg développement ak yeneen ak yeneen bëggatuma kenn di wasin di dee jigéen war sul wasin di dee Europe amu fa jigéen war a jël ay saret di dem di dee ci yoon bi warul nekk ambulance war a nekk ci commune rurale yi def ay centre de santé yu valable am ay gynécologue yu suivre suñu jigéen ñi mais Sénégal ku ëmb ku ëmb sa jëkkër day tiit seen mbokku tiit foo ni mën naa am nga bàyyi fi sa bakkan loolu amul fu Europe ak Amérique suma programme fu dimbali jigéen ñi la kon dimbali xale yi. mais xalif bi ñaanal xalif bi ñaanal na la ci loolu. xalif bi ñaanal na la. xalif ñaanal na ma ñaan bu rëy.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 su ngeen dikk dégg dégg les meilleures marques moom mooy Destock Electro